luy naa ñëpp fii laay tàmbale yéen ci seen revue de presse teel sa kaas kafe nga guux bala ngay naan bay si mu leex ma la li xew ci riimas kon sunu gaal gi yëgle kaay gi ne gi naan maan ginnaaw ba leen yónnee yëgle kaay gi nee ma ñu dugg ci aw foos faatu fa nii am na geneen gone gu faatooti ci ndox mi la yëgle kaay gi naan man mbir maa ngi xewe ca diwaanu Kofentin ubbil yéene kaay bi xale ba ñaari at kepp rek dong la doom faatu ci ndox mi léegi naaw lab gi nga xamante moom la lab ci ndox taw bu métti ba fa jaare yóbbaale gone gi yóbbil yéene kaay bi gone ga daal di faatu ca ndox ma leen gone yi ma ni sangu beeg yooyu yëpp nan ko tere gone yi ndax kat daa wuur mbokkam wër nañ ko wër nañ ko wër gu méttee métte ay mbokkam a def lu ni mel yëgle kaay gi naan man seetal ma lii ndekete yoo gone gaa nga ca kàmb ga lab fa ñàkk fa bakkanam ñuy wër di wër ba seen néew ba ca kàmb ga bébé Malick dem na ay waajuram ànd ak njàq rek tiis ak mettit lu mu tar woo xamante ñi ngi koy naqar ji nga xamante ni moom la ñuy dund fan yi ci réew askanu sunu gaal dox ci diggante ñi nga xamante ne ñoom ñooy nguur gi ak ñenn ci ñi nga xamante ñoom ñoo di abbé yëglekaay gi naan maan coowul muuru li nga xamante ni moo indi polémique bu rëy muri ay kàddu yu doy waar ci réew askanu sunu gaal wax jakat ka ko sulli ka ko soulevé ka ko tàmbali yëglekaay gi naan maan kooku premier ministre lay wuyoo Ousmane Sonko ni dootuñu nangu laa wax ci yenn école yi ñu naan ndiw day muuroog du muuroog bile école dañ fii tere kuy muuru loolu moom nee dañ ko sunu gaal gi lee dox ci ay tànk jàmm tax na ki nga xamante ni moo di Moustapha Guirassy yëkkati ay kàddoom dem seeti Benjamin Ndiaye ca Ndakaaru Ndiaye jël ca waxtaan ba ma ngi koy xamal naan Sénégal daa am lu ñu leen bàkkee muy jàmm ji nga xamante moom la moom la islam a chrétien nekk ci réew mas kon sunu gaal gi lee ay waay jooju jàmm la soxla dem na ba naan bari na lu ñuy wax ci réew mi naan Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar moom daal a moom la ñaan ñuy ñaan jub jubal geeg jubanti gi di wéy ci réew askan sunu gaal yëgle gi naan maan ña jubal ak jubante ma teg ca ni di kare xoolal ma waa ji ci jëmi boppam bu nu ko karitoon mu génn ci réew mi lée lu jëm ci wàllum impôt la yoreel réew askan sunu gaal lu tolloog 12 milliards doon ndaw ni pëccët ànd ak mbokkam ba gën a génn réew mi nu kar ko ci AIBD la nu ko fekk ni ko taral ni ko doo dem taxawal fay bor bi libération def fu ma jëm sama jabar ji dem na ba commencé tiit ak jaaxle ma ne ko nan génn réew moom daa mel ni commencé woon naa waajal boppam naka la jot ay notification des conclusions di fixe commencé jël li nga xamante ni moo di ay biem du commencé dàq ñenn ñi ñu deen ca la yem mu bëgg na daw du nu ko nangu ubbil yéenekaay bi du nu nangu nag mbir mi di jaal noonu te du nu am ay mbir yu leer nañ ñi wax ju leer nañ ñi ma ne ay explication yu leer nañ ñi te mucc ayib la ñu soxla ci mbir mi yooyu la ko ko yëkkati kooku Abdoul Mbaw la yuyoo Abdou Mbaw la mu bëgg mu leer nañ naññ ba mel ni aw bëccëg mooy dàq gi nga xamante ne moom la ñu dàq directeur LONASE gi lee Abdou Mbow ne mbir mi na leer waaye leeragul ci noppi réew mi askan sunu gaal Abdou Mbow mi la di député yëbbal kayit Cheikh Tidiane Dièye ngir rek mu daal di leeral dàq gi nga xamante ne moom la ñu dàq Cheikh Dieng mi nga xamante ne directeur la moom daa yàggul sax ci poste bi benn jàpp ñaar jëm ci ñetti weer dong nunu ko ay ca moom mi ñu wàcce ne procédure bi nga xamante ne moom la ñu attribué marché yi am na ci ñooñ dañuy wàññi seeni offre bu a a dañoo xëy xëy gis ñu dàq directeur bi ci ñetti weer yoo xamante ne moom la def Abdou Mbow ne teel na lool ci ñoo xamante ne dañuy jubal ka jubal ak jubbanti ngir dàqee ka defi wurit waa ji daa bëgg na jubal dañu dàq ko Abdou Mbow ni Cheikh Tidiane Dièye expliqué nu mbir mu ne mel mbirum tasum assemblée nationale dissolution bi yëgle kaay gi naan maa ndax des koy defam déet dinañ ko desu duram déet lu ci am ba des daal daa am àpp boo xamante ne xëy na moom la ñu teg ci table ji ne tànk jotul kenn du ko def kaay ma xamal la nag bu ñu sukkandikoo ci article 87 bu constitution bopp Sénégal ma ne njiitum ci jëmi boppam laax mënul dissoudre assemblée nationale fii léeg amul ñaari at coow leeg jafe-jafe leeg mbiicoog mbaaloo gi ci am mooy ñoom ana kañ lañ yëglekaay gi naan ma xanaa ba nu toogee nag ba ne rékkum ni ñun député lañu booba la ñu war a tàmbali El Amat Thiam juriste consultant la moom ne départ bi mooy keroog ba ñu defee proclamation kon nag foofu la ñuy tàmbalee wàññi jëm tey bu bu matee ñaari at rek dinañ dissoudre assemblée président boobaa di gaalu loo ci nemmeeku nañ ne mi ngi faat sunu ay doom gone yi jël mbëkk mi di dem ay ñun fu nu jëm ak lii lii de doyati na waar l'observateur yi la kaay naan maan gaal gu ko póoti juróom-ñetti doomi aadama yu ci faatu nii ay waay ndaw sàmba metti na neuf personnes dem ni réer mëri kenn gisul leen yéen ñi yër yëgle xanaa gis ngeen ñuy bind presse presse enquête yëgle naan maan la presse à l'épreuve crise secteur des médias oublié ne kaay mboole seen entreprise u presse yi commencé na ñoo ay jafe-jafe ki difficulté waa kab taxaw nag la ñu suspendre gi nga xamante ni moom la ñu suspendre publication Stades ak sunu lamb Alassane Samba DG E-Media yëkkati ay kàddu naan nous la mise à de la presse sénégalaise eh te donc réagir ñu benn yoon ñu réagir yëgle kaa gi di laas naan ma ñoo ñëy liggéey ca fa nga xamante moo di suma national ñoom ci seen jëmi boppam nag grève lanu woote boo xamante ne fan lay def ñoom nag nee ñu satisfaction la ñu amul ci seen revendication obligation la ci tënku te dox ci réew mi quotidien yëglekaay ne ma sëriñ Muntaxa Mbàkke Albasir ci jëmi boppam yëkkati na ay kàddu jagleel yoonu murit jagleel réew mi ginnaaw bi mu ñaanee jàmm ci réew mi askanu sunu gaal ne murit yi na ngeen xam nag li nga xamante ne moo di dige yi ak tere yi fii fi Tuubaa yéen nga xamante ne yéenay ñëw di màggal dem na ba naan aw murit day nangoo jaamu yàlla waaye itam nangoo liggéey Tuubaa da am lu muy digle ak lu muy tere ci biir Tuubaa gilee daa am loo xamante ne dañ ko fee nangu ak lu fi bañ fi ñëw waaye na nga tënku ci li nga xamante ne moom la sëriñ bi bëgg sëriñ Bass Abdou Khadre ne rek waaye nañu déglu kàddu yi nga xamante ne moom la ñu sëriñ Muntaxa Mbàkke Albasir digal ñu def yée ñii di liñ leen dafa yéeme te doy waar ñeenti nit yëgle kaay gi naan man di ay mag ak rakk yoo xamante ñoom ñëpp la seen ndijaay boo tëjlu yée yée mbir ma yéeme na ma ne ko doy waar kay la def ëpp na tool ah suy laatir bu baaxee rek bu sama clavier ñu dem ba subaak jàmm ak salaam yéen seen revue de presse wolof ak Fall Damel càggeen jëf jërë ngeen jëf càggeen teewlu waaw di jaajëfal képp koo xamante ne nag yàggu ni bàyyi xel uh, fii ci Thiès Info Télé Sénégal également Euh, Sénégal TV itam euh, ñu jaajëfal leen bu baax a baax di jaajëfal Thiès Info gi yëpp nag di jaajëfal équipe technique bi di jaajëfal ñi nga xamante ne ñu ngi jàpp ci liggéey bi ba mu yemb saa su nekk am ñu nekk suñu ginnaaw ñoo xamante ne ñu ngi def liggéey bu mucc ayib macha allah ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di ñaan jàmm ci rimas kon sunu gaal ndax kat jàmm euh, jooju ma ñaan rek ci la lépp daal di xaj rek nag kon mbokk yi ñu jaajëfal leen kontaan leen bu baax a baax a baax di leen wax ni kaa bi nu tàmbalee di ab xale boo xamante xamante rek daa lap ci aw ah, ndox woo xamante ni ginnaaw taw bu metti ba ndox mi yóbbu ko mu dem ca kàmb ga daa di fay làpp gis nga bu yàggul dara wax nañ ko ci Thiès gaay kon nag ah, gars yi kilifa yi kër gi ah, waaw parce que coow li mbir mi xanaa xamoo ne ab dëkk mi ngi defaroo ci ab néeg ci ab néeg laa wax ab dëkk ci ab néeg waxuma la ci ay assemblée ki pale de ci ab néeg waaye yéen da may laaj lu tax nga ni ab dëkk mi ngi defaroo ci néeg ma leeral leen ku nag ni ngeen ma laaje luy simb leexu ma leeral leen ko laaje leen ma ko noonu ab dëkk mi ngi defaroo ci am néeg xam nga nan la defaroo ci am néeg mooy néeg bi ci ba jëmi boppam papa ak yaay ñoo fa dëkk woo seen doom ni ko yóot ni ko gone gile ah lii de ak nàngam ak sàngam lii de wax dëgg nawet bi ñëw na wala nàngam ak sàngam lii de ñun sunu doom nga bu nu sañoon doo ci dugg bul def lii bul def laa segam sunu doom nga xam nga mbir maa nga commencé ci néeg ba xale bi bu génnee ci mbedd mi wala ci ëtt bi dina bàyyi xel kàddu yi nga xamante ne moom la ko bàyyam waxoon bu dee ci ëtt bi yéen dong nga fiy dajawaat wala am na ñeneen sax ñu fiy dajawaat kilifa kër gi tamit coow wax ja euh, defar lay defar dëkk ba ma nga tàmbalee ca ëtt ba ah yéen ñii kat di sama njaboot bu ma sañoon nawet bi kat ngeen ñaax gone yi ba kenn du ci dugg ci ay ndoxi taataak yooyu di jéem a sangook yooyu waaye day taw gone yi daw génn nga baleen ak di leen tàcc naa xoolal ma diw yow diw génn na ci taw bi <laughs> waaye yow diw mi yow xool ko la muy sangoo kii ne moo réewee di tàccoo ko kontaan ci loolu waaw mu nekkee ci taw bi di sangu di sangu di sangu ba ndox ma yóbbu ko musiba du am kon borom kër yi ci ëtt bi waaye ci mbedd mi nga génn seen gone muy sangu nga ne ko ayca sa kër ayca duggal sagam seen waa kër ñoom gi terewuñ ko génn yow nga seen ko ci mbedd mooy songu rek nga ne ko ayta ci biir waaw noonu noonu bu ko defee dëkk bi noonu ah dem ba réew mi bu ko defee daal jàmm mën naa moo tax man la dëkk bi li koy defar mu ngi tàmbalee ci am néeg waaw kon na gaañ yi ñu jaajëfal leen bu baax a baax a baax di jaajëfal képp ku ni bàyyi xel moo xam nga nekk ci biir réew mbaa bitim réew sëriñ Abdou Salam Sarr mbaa lépp baax na alhamdulilah sant nañu di jaajëfal képp ku ñuy bàyyi xel bàjjan xuja nee da laa bëgg a gis nag ah, ah mi ngoog kon nag nana fexe bàjjan xuja gis la acca kon nag ñu joxante di daje ba suba jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla def ci réew mi askan sunu gaal maa ko diggee maa ne képp ku commentaire ma tudd saw tur waaye da ngeen ma koy jéggal tay rek ba suba jàmm ak salaam ma bégg leen yéen ñëpp jërë ngeen jëf